man mangi tuddu sergent Vieux Corba mangi bok ci caserne sapeur pompier bu Géejawaay tay nak samay kilifa ñoomu fi yebalon kilifa yebalon ma fi pour ma ñew defal len ben sensibilisation bo xamante mu ngi aajo ci extinction incendie aajo wo tamit ci naka lañuy jëlé en charge ko xamante dafa tàggoog sagom manam dafa xam àndatu la xelam mais avant tout mangi nuyu suñu mbokk yi français yi nek fi di commencer si monsieur le maire n'est-ce pas de la ville de Saint-Laurent n'est-ce pas du Var en Nice di nuy aussi sama yaay yi ma fi fekk kon xam naa du ñu jël temps bi lu bari dañuy woo ñëw rek commencer commencer manœuvre bi ngeen xam ne nag manœuvre bi ñuy def kenn ku si nekk si yéen war na ko mun a def ci këram wala ci koñam du caa gën ne dafa nekk sapeur pompier rek moo tax mu war ko mun a def parce que yi ngeen gis ne sax suñu yaay yi ak suñu sœur ak suñu jabar yi ñoom lay gëna waxal parce que ñoom ñoomee habitude di togg té parfois ñu togg tak tak am ci bir wañ bi ñu tir ragal daw té amana amna lo xamné buñ ko defoon dañ ko mëna fay ba lu bëri du ci kon ngeen ñu bayi leen ñu leen di ñaan rek ngeen bayi xel ñu mëna commencer activité yi wasalaam mooy dugg ci wañ bi tay togg waaw agay togg mo ko waxoon nañ ma da ngay tek sa gaan sa mbar mi sax am na nu muy demee su baaxul li ngay togg du baax parce bi am na muy am teg na gazam teg marmitam mi ngi waaj a ñëw def diwlinam pour saaf ginaaram ñu xool nan lay mujjee. diwlin bi sax foofu mu bëri parce que diwlin bi foofu muy dugg si biir yàpp bi. naa diwlin donc sotti na diwlinam. xaaral ma woo ko sax xool na diwlinam. taal na gazam teg na ah. ginaaram. ma nga dem nag di waxtaan téléphone ak jabaram ah, fàtte woon na ne sax teg na gaz ba. donc ah, diwlin baa ngi saas di distance ba mujj jàpp diwlin bi jàpp na. moom ñëwaat na dugg ci waañ bi gis diwlin bi sens mu ciy sotti ndox pour fay ko mais affaire dafa gën a tàkk ba muy fayit gis ngeen ne lakk na ci loxo.

ngelaw amatul da ngay gis ne automatiquement da fay loolu moo tax nga gis automatiquement fa fay mu doga fay gaz bi te li kenn ku ci nek ci këram war nako ko xam war ko def Lekiran lan lay def ki lak ki lak su ngeen amé seen kër ko xamne da fa lak automatiquement bu len ci def pat dentifrice bu len def da ngeen di jël ndox ndox robinet nga rod ndox ci robinet bi wala nga yobbu ko ba ci mi nga timale loxo bi nga baye ndox mi mu roogalaat ci kaw lak lak bi dina tax lak lak bi du du yok du propager wu te tamit dina tax ki lak moment boobu noonu douleur yi dafay wàññeeku bu baax a baax a baax donc mu sotti ndox mais ñu gis ne dañoo dem ba ci kanam waa ji mujj xëm tàggu sagoom léegi lan la def dafa ñëw mu constaté ndax waa ji dafa xëm naka la koy defee daf koy laaj ay gestes yu simple wala mu posé ko ay questions yu simple sëñ bi ndax yaa ngi may dégg bu fekkee yaa ngi may dégg bësal samay loxo bu fekkee yaa ngi may dégg bësal xipil say bët ah waa ji tontuwul kon waa ji dafa tàggoog tàggoo nag sagoom donc dafa xëm mom kese bu da fay yow woy walu woy walu parce que mom kese mo nek il faut que mu wut ko après lan lay def fay ñëw def lu ñuy wax apprécier n'est-ce pas la ventilation mu xol ndax ki xam mi ngi nooyi wala noyi wut nan la def dafa ñëw mu jegelee lexam ak ay noppam si gaming ak bakkinu victime bi lolu ñetti mbir lay jour da koy permettre mu mëna sentir ngelaw parce que kuy noyi gémmiñam ak bakkanam fay génné ngelaw lu ñuy wax le flux d'air kii yi aussi di nga dégg ay ay bruit waaye tamit ak ay bëtam dafay xool ndax dënn victime bi ak biir victime bi mi ngi yéeg di wàcc ah victime bi mi ngi nooy kon dafay ñëw di ko def lu ñuy wax la position latérale de de sécurité position latérale de sécurité nag mooy position bii mu def moom la ñuy defal koo xam ne dafa xëm wante mi ngi yi donc position bii ngay gis dina permettre victime bi du am lu ñuy wax la chute de la langue vers l'arrière vers l'arrière gauche parce que su ko bàyyi woon mu tëddi jaaxaan làmmiñ bi dafay dem tëj pour bi le mën noy. donc victime premièrement éviter deuxièmement dina permettre victime bi victime respirer en attendant que renfort médical di donc ça permet de préserver et d'améliorer la respiration de la de la victime troisièmement aussi dina permettre ce qu'on appelle les liquides de sécrétion ou bien les vomissements ñu mun a ñu mun Les lu wala ay wëccu wëccu ne ko au lieu muy dem ci biir di encombrer les voies respiratoires dina ko permettre mu mun a mu mun a génn donc position bi la ñuy defal koo xam ne dafa xëm wante mu ngi nooyu donc lan la siy def nag li mu ciy def nag moo gën a am solo moom la ñuy wax la message d'alerte dafay woo fu mu toll ni sapeur pompier sapeur pompier nag pour nga woo leen foog message bi leer parce que su leerul dañuy ñëw ba foofu du ñu xam adresse bi message dafa war a leer nga wax exactement ce qui se passe donc ñu déglu ko mu def message d'alerte am Allô, bonjour. Allô, oui je m'appelle Cherno. je vous appelle sur mon numéro 107 336 12 je suis ici à Guédiouaï, précisément station Touré j'ai devant moi un brûlé il est tombé dans l'inconscience je te sais la conscience la victime inconsciente est vacille. et je les mets en position latérale de sécurité est-ce que je peux rapprocher waaw donc ngeen gis ne message d'alerte bi loolu la message d'alerte bi si njëkk soo wootee da ngay wax allo 18 ñu ne la allo nga joxe sa numéro de téléphone ak sa tur. loolu nag du daara ñu lay laaj sa tur dañu bëgg rek bu secours yi ñëwee réer ñu mun la woowaat nga mun leen tegtal fan la donc da ngay woote nga joxe sa numéro téléphone joxe sa tur beneen bi ci topp mooy da ngay wax lan moo xew exactement ndax accident la ndax ku feebar la. wala nga wax exactement lan mo xew pour que sapeur pompier bu ñu ñëw xam yan moy lañuy indi len list top moy da ngay wax les risques éventuels parce que accident bi mun na am accident ba pare explosion mun na am wala incendie wala am wala mu nekk effondrement bâtiment bu waaj daanu wala mu nekk produit chimique donc li xew exactement foog nga wax ko ñu xam yan moy lañuy indi benen bu ci top moy da ngay wax l'adresse exacte ou bien la localisation nga wax mbir mi fan la am

ñu mun a xam yan moyen parce que am na accident yoo xam ne benn ambulance du doy ñaar du doy il faut ñu indi ñett ba ñeenti ambulance leneen bi stop mooy nga wax l'état apparente de gravité de chaque victime kenn ku ci nekk nga gi wax à peu près état ban la nekk nga wax ko ñu mun ko xam aussi beneen bi ci topp mooy nga wax les premières mesures et gestes prises yow mi fekkee accident war nga am loo war a mën a def en attendant sa pompier yi di ñëw leneen li ngay tëjee nag mooy bul raccroché mukk te dégluwoo ki ngay jot ci sapeur pompier mu wax la lan nga war a def parce que ki ngay jot foofu aussi moom sapeur pompier la li ñuy jàng la jàng parfois mën na la ne defal li defal lii nga mën a dimbale victime bi donc sapeur pompier yi nañ. donc sapeur pompier ñoom bu ñu yegsee da ngay gis ne nag maintenant nag victime bi mi ngi commencé nag ñëw dugg ci loxo yu wóor xool leen bu baax ñoom lan la ñuy def. donc ñoom dañ ñëw ànd ak chef chef bi ñu àndal moom mooy joxe ordre yëpp parce que bakkanu joo doomu jàmbur dafa dafa foor donc chef bi moom mooy coordonné lépp lépp lu ñu fiy def day ànd ak ay ordre ànd ak ay coordination donc préparé nañ victime bi pour war ko yëkkati teg ko ci fi civière bi dégg mu joxe commandement parce que ko ne ku nekk fi nga war a taxaw taxaw nga fa dafay laaj ndax kenn ku si nekk pare nga mu ne ci bopp bi ba si tànk yi ndax pare ngeen ki ci bopp bi ne pare naa ki ci mbagg yi ne pare naa ki ci ndigg yi ne pare naa ki ci tànk yi ne pare naa mu doog a joxe ordre pour ñu yëkkati parce que dafa war a ànd ak cohésion dara waru si waru si waru si jaxasoo lépp dafa war a nekk loo xam ne dañ koy day ànd donc tek nañ victime bi ci civière bi légui dañuy def luñuy brancardage def relevage brancardage ko ci dem ko ci ambulance bi ordre clair et net nga pour le relevage d'une victime par quatre équipés en position chaque jour de leen ndax ñëpp pare nañ parce que bëgguñu ñu yëkkati fekk am na ku parewul victime bi daanu li ma leen wax sànq rek bakkanu doomu jàmbur dafa foor te suñu loxo la nekk donc dañuy jël précaution yu war yëpp pour que victime bi nekk ci sécurité ba keroog ñu koy yóbbu ci loxol kër docteur. lépp ci ay commandement la même bu ñuy dox sax bu ñu waree tourner sax commandement mooy tax ñu tourner bu ñu waree taxaw commandement mooy tax ñu taxaw. bañ keroog ñu koy dugal ci biir ambulance bi maintenant ambulance bi ñoom ñoo koy yóbbu ba keroog mu yegg ci loxol kër kër docteur. donc lii lañ leen indi